alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin noo ngi sant yàlla sunu borom bu baax di leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh noo ngi yeesal sunu tuub di ko jëmale ci sunu borom ci mbooleem suñuy rëcc rëcc ci pas-pas ci kàddu ci jëf ndax def noo bind moom yàlla suñu borom nuy ay doomu aadama di jëf jëf doomu aadama di wax waxi doomu aadama di melakaanoo melakaanu doomu aadama kon bu ñu toppee ci sunu doomu aadama li mu bind rek dara du ko jar ci kon li nu war ñun ñëpp mooy fu ñu toll di yeesal suñu tuubal ko ku tedd ki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne dee leen tuub ndax man bis bu set danaa tuubal yàlla juróom-ñaari fukki yoon waxuma laak nag kon noonu tuub nag jaam bi bu mu ko def mukk ne ah man kat su ma tuubee tey ci guddi bu subaa ma def leneen mbaa ma wax leneen mbaa ma meloo leneen déedéet loolu koy xam seetaane la waxtu wu ne dañoo war a dëkke tuub ndax fi ngay tuubee ak fa nga naan amaana bu ma tuubee kat mën na maa defaat leneen fi nga tuubee yàlla nangul la sa bakkan mën na faarata nga taxee fa ba faaw kon noo ngi gën di tuubal suñu borom bu baax di yeesal suñu tuub ak suñu jéggul ko ci luñ yëg ak ci luñ yëgut di dellu it di làqu ci seytaane ci moom di ko ñaan mu dox suñu diggante ak seytaane ba faww moom yàlla suñu borom ndax seytaane kat day jëmm joo xam ne jëmm ju am kattan la te suñ borom it moo ko roof kattan bi may ko it ak sax ba keroog muy lal muy lal gént bi nu nekk di àdduna ndax ca alastu bi rabbikum gët la ko jiitu ba mooyee suñ maam aadama ci melaw ban bind woo xam te jëmmam ju tedd ja def ko ci moom digal malaayika yi ñu sujjóotal ko ñépp sujjóot iblis joxe ngànt ngir gis ki mu gis boppam loolu moo ko rékki ci péyib suñu borom ba mooy tax bépp mbindeef boo xamante ni loo mën a mën a mën a mën a jaamu yàlla foo gisee sa bopp rek sa jëf yàqu ba faw nit ki warul di gis boppam mukk ndax bu delloo dëgg dëgg dëgg xam dana gis ni moom kat nekkut dana gis ni moom kat amut yàlla rek mooy aji am seytaane moom mi nga xam ne nag suñ borom daf koo kàttanal may ko ak des may ko xereñ akum xel ak tëbb ko it kàttan bi mu tëbb yonent yi te itam du lenn lu may ki tege ci siraatal mustaqima mu mën koo rékki yàlla na suñu borom dox suñu diggante ak seytaane ba fawwu te ku baax ki kat dafa wax ne bu leen wóolu mukk pexem seytaane di fekk seen ruux teqalikowul ak seen jëm kon yàlla na yàlla dox suñu diggante ak seytaane ba faw te pexe yi muy ñëwee doomu aadama it wàll yu bari la fu ne it fa la lay awe te it seytaane dafa am aw nit ñoo xamante ni seytaane mooy roofu ci ñoom di leen wax loo di leen def loo ni nga xamante ni sunu boroom mooy roofu ci nit di ko defloo di ko waxloo ki yàlla ne ci moom mu lay defloo ak a waxloo waxam ni muy jeexitale ci yow ci yàlla ba nga koy yëg di yëngu sa xol di set di leer soo dékkee sa bopp it koo xamante ni seytaane moo nekk fi moom it noonu la la mën a yàq wala xiyaasu billah seytaane mi ngi tàmbalee ak yàqam bi ko suñ bi ko suñ boroom rekkee ci pays ba ci suñu maam aadama bi ko suñ boroom dugalee aljanna te bu lay yàqalit day waat day giñ ki yore melaw seytaane wax bu ne lam lay wax mën nay waat mën nay giñ mën nay giñ ci kaamil lu ne mën na koy def ngir yàq sa fas-fas ngir rikki sa fas-fas ni ko seytaane doon defe ndax suñ borom bi mu tàbbalee aljana suñ maam aadama ak suñ maam hawa keroog ba mu leen fa fekkee feeñu leen daf dafa leen a giñal ci yàlla ñoom nag xam giñ xam yàlla ak gëm gi ñu gëm yàlla ak wóolu gi ñu wóolu yàlla ak wéetal gi ñu wéetal yàlla tax nañu jàpp ni lépp lu nit giñ ci yàlla rek dëgg la leen su tële leen seytaane man ngir giñ googu mu di leen giñal ni leen dama leen di labiré ak lu baax laa leen bëggal ak aw yiw laa la bëggal foofu yëpp bunti law yoo xamante ni seytaane dafay aw kon yàlla suñu borom dox suñu diggante ak seytaane ba faaw gannaaw ba ñu musuloo ci seytaane tuubal yàlla suñu borom di ko sant nag moom yàlla cant koo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem te cant gu gi kenn ku nekk ci noonu it su làmbee ci boppam daj bu xoolee ci bëtamit gis ko muy lu la jege boo làmbee sa xol yëkku boo xoolee ci say bët gis ko ci may gi nu ma yaat nu bokkaat daje fii ngir yàlla ak yonentam ak jëmmi Sëriñ Tuubaa sant gi ñuy sant sunu borom mooy daf noo defal loo xamante ni ak njàmbaar maywun maywu ko yitte it maywu ko pas-pas it maywu ko ak farlu it maywu ko waaye dafa bokk ci yi nga xamante ni coobare yàlla ci la ko suñ borom di defe muy nu nekk ay nit kenn ci nun ñi toog fii ak ñi ñuy déglu ak a seetaan kenn koo ci xamante ni ak njàmbaaram moo ko may mu doon nit kenn ku nekk la la def doomu aadama du loo wax du loo def du loo waxal yàlla du loo defal yàlla yàlla la soob bu def la ngay doomu aadama loolu dafa bokk ci jagley suñu borom yi nga xamante ni nu ko nu mu ko soobee ni la koy defee ndax xar yi bëy yi nag yi gëléem yi defuñu yàlla lu tax mu def leen ay xare ak bëy ak gëléem coobare yàlla moo daje ñoom ca loola coobare yàlla yi daje noonu ñu ay nit du ci pas-pas du ci jëf du ci melo du lenn waaye coobaree man gëne la moo dajal noonu ñuy doon ay doomu aadama loolu war nañ ko yëg xam ne bu leen defal suñu bopp waaye yàlla moo la ko defal nañu ko ci sant ba mu nu defee nuy ay doomu aadama yi moom yàlla ci coobareem ndax ngëneel yàlla yi dafa am loo xamante jëfu koy maye waaye dafa am loo xamante ci coobareem rek la ko teg def gi mu def ay doomu aadama nag loolu ci coobareem rek la dafa bokk ci innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha loolu nekk bi nekk ay doomu aadama ca la bokk jëf mayu ko bu ñu demee ba ci kanam bi dana am yeneen xeetu jëf yooyu nit ki du mënu koo may boppam jëfam it mënu ko koo may waxam mënu ko koo may meloom mënu ko koo may pas-pasam mënu ko koo may waaye ngënee ne yàlla rek moo ko cee mën moo ko koy mën a jotale kon lu sant yàlla ci loolu di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nu andil ngën di diine muy lislaam diine ji nga xamante ni façon borom mooy diine képp ku diine woo jeneen diine jutu diine lislaam suñ borom du la nangul julli gi ni julli ci moom ak sëlmalit di ci dugal saxaabaam yi àndoon ak moom joxe seen dareet ak seen alal ngir yàlla jiite duñ seen kërug ëllëg ci seen kërug tey jox seen lépp yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mu gënal leen seen jëmm gënal leen seen alal gënal leen seen njaboot te loolu lépp yi di dëgg ci ñoom di sant Serigne Touba mi waral nag daje bii nga xamante ni ñoo ngi ko daje fii ci Touba muy daje boo xamante ni da ci da dafa sàkku ci képp koo xamante ni yaa ko aju ci moom nga di ko ci sant yàlla sunu borom coobare sunu borom ak ngëneelal sunu borom taw fee xamit boole na boole na ci moom ñu di ko ci sant la yàlla sunu borom cant googu it war nañ ko dund war nañ ko yëg war nañ koo xam te bañ koo teg ci xaada ndax ba muy wax kat ab sëriñ bu ma dub sëriñ boole na ca lam ca waxoon kama yu rab yi bi takkal xaada maanaam bañ a def ngir defandoo rek waaye di def ngir yàlla kon sant la gi ñuy sant la sunu borom sëriñ Touba war nañ koo xam bu baax ndax la ko génne woon fii ci Touba mu sat ci mbakki bari ca jolof ba nattu bi agsi ci kawam ci mu tàmbulee ci jàkkay daaru xuddus ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñu ko fi won mu won ko daraja ji mu bëgg mu wax ko la koy maye muy natt boobu yi ba mu dem mbakki bari jolof ba na mu fi jógee dem ci géej gi ba ñibbisi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tëñal ko yanam boobu yi ba mu yeggale ko fu kawe njortam suñ borom defal ko ci tawfiix ju mu defalul kenn mu wax ne raafaxtu fi xidmati tawfiix xaalixinaa liggéey bi mu doon liggéeyal yonente bi suñ borom defal na ko ci tawfiix ju mu defalul kenn ba kenn ku nekk ci nun xam sëriñ bi yitteem ci yàlla pas-pasam ci yàlla ak yitteem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ak pas-pasam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ci liggéey boobu yi nga xamante ni mi ngi ko ko doon liggéeyal ba loolee may ko daraja joo xamante ni képp ku takkoog moom mu réggi ci yow wépp melaw yàlla gërëmut takkaa yàlla melaw yi suñu borom bi subhaanahu wa taala gërëm def ci yow ngërëmal yàlla lu ënt ak meram mukk du yem ca loola waaye melawoo wi yewit nga mën ko defaat ci mbooloo ñu di ko tudde seexam kon sant gii nu koy santale sunu borom war nañ koo xam bu baax du rek loo xamante ni dañuy ñëw rek daje ci dëkk bi di wër déedéet waaye dañoo war a fexe ba gëm gëm gi mu amoon ci suñu borom ak wéetal gi mu wéetaloon yàlla ak jox gi mu joxoon yàlla boppam ak wakiil gi mu wakiil woon ci moom moom rek ak ay noonam ba suñu borom notal notal ko ay noonam yëkkati mbiram ba faw ba tey jii ña ko doon noonu seeni sët sax ñu ngi jariñu ci màggal bi ñu dul ay jullit sax ñu ngi jariñu ci màggal bi kenn ku ci nekk muy ab société mu ku man di doon yaa ngi jariñu ci màggal bi murid rek du tiijaan rek du xaajal rek di ñu dëkk réew mi rek waaye adduna bépp tey ñu ngi jaroon ci bisu jantam bi nga xam ne cant gi ñëpp ko bokk ñëpp adduna bépp dugg nañ ci biir cant boobu waaye la ca war a doon suñu wàll nag nit ñi nga xamante ni ak njabootam lañu moo di kenn ku ci nekk fexee raxas xolam raxas kàddoom raxas ay cërëm ba doon royukaay ba foo nekk doon fa takk ndeeru Sëriñ Tuubaa taxawal lislaam koo nekk taxaw fa taxawaayu lislaam ci sa wax ci sa jëf ci sa melo te jëmmi suñu borom rek tax ndax bernde yi moom gën a xam ne ni matale na sëkk waaye kenn ku ci nekk la ko tax a dagg yitteem ñiy dagg billet avion jóge Amérique ñi jóge Asie ñi jóge Afrique ñi jóge Europe ngir teew si fii kenn ku ci nekk ñi jóge ci biir réew mi dagg seeni paas ñuy jël seeni wat seen yitt yëpp ñu dagg ko ngir yàlla ak bu yaram def ak jëmmi Sëriñ Tuubaa bu ñu teewee ci béréb bi kenn ko ci nekk war naa yóbbaale yóbbal mët yóbbal ci sa diggante ak sa borom boo xam ne dana la jariñ ci sa dundinu adduna waaye dana la jariñ ci sa dundinu ëllëg yowmal xiyaam loolu mooy li nga xamante ni képp ku fi teew war nga yóbbaale loolu ci biir dëkk yëpp nag mooy mooy warteef ci ñun ñëpp ak fi nit mën a nekk kon santale googu ñu di ko santale sunu borom day jaamu lool kenn ku ci nekk fu mu nekk mu doon fa takk nderam nangoo jaamu yàlla waaye it nangoo liggéey ci fépp fu mën di nekk yéen ñi nga xamante ni nag sunu borom dafa dogal nattoo ma li may doy di doy di ak li may xeebu xeebu ak li may matadi matadi ngeen njëkk ma seeni loxo ngir jëm yàlla ak yonent bi ak Sëriñ Tuubaa maa ngi leen di gën a dénkaat kenn ku nekk ci yéen ma tàmbalee ko ci saa bopp nañuy tuub tuub bu sell jëmale ko ci sunu borom ci mbooleem sunuy wax ak sunuy jëf ak sunuy melo ci lu yàlla gërëmut waaye nañu fett liwaat ci sunu laxasaay jëm ci lu yàlla gërëm te bañ a gestu fas yéene wuy ci digal tey wattandiku tere tey maandu tey rafetal tey jàpp seeni wéyju te warmaat leen te weg leen ngir jëm yàlla te la ngeen bëggal seen bopp yi ngeen bëggal ko jullit ñépp te yàlla rek tax bu ngeen gisee nii ma dafa leen Seydou Ahmadou Seck nii kat nit li ngay wax balaa wér danga koy jëf ñépp mën koo gis buñ naan këri diine yi nañ nekk benn nañ nekk benn nañ nekk benn ba keroog adduna di tukki te tatabiix te jëfewuñ ko du dikk daal kenn ku ci nekk da ngay nungoo wàcc sa daraja ngir yàlla xam ni ñun ñëpp génn jëmm lañ du ñaari jëmm Mawlana Cheikh Abdoul Ahad Mbacké dafa doon wax ne diw murit la diw xaarit la diw tiijaan la mi ngi mel ne ñett ñu bokk ndey bay kii ñuul kii xeereer kii weex kenn mënu caa muus ba tam morom ma ñu ragal ñu ragal ko bàyyi leen kon gannaaw suñu tuubal yàlla gannaaw suñu cant yàlla gannaaw julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Serigne Touba mi nga xamante ni moo tax mu daje fii ñoo ngi nuyu ak siyaar di ko fi teewal Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ndokkeel ci bis bi di ko ñaanal mbooleem loo xamante ni yéene na ko ci yoon wi suñu borom defal ko ci ndam defal ko ci barke defal ko ci tawfiq ba naalam yi nga xamante ni yéene na ko naal ko ci yoon wi ci lislaam lépp yàlla defal ko ci barke ak tawfiq àggal yi te ñu ànd ko ak moom ci gën gaa rafetina am di dellu di yeesal sunu ñaan ci sunu sang bu tedd ba sëriñ Sadio yàlla yàlla dolli leeram te taas ñu ci barkeem di nuyu ak a siyaara sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke ma toogee ab jataayam yàlla yokk ko wér ak tawfiq ak ndimbal ba naa la yëpp mu àggale ko te ànd ko moom di ndokkeel njabootu sëriñ Touba gépp ci bis bii bis bi bokk na ci liñ ci war a jànge wéetal yàlla ak wakkiilu bi ci yàlla sëriñ bi bi muy génn moom rek la bàyyi nag njabootam gannaaw bàyyi na ay taalibeem gannaaw bàyyi na léppam gannaaw ànd moom rek ak ay noonam juróom ñett at yu manqué tuuti yuqatu ñaan ki wut keroog la gën a fett ak laxasaayam ba dem amee ñu bëgg te la jiitu loolu kat bi muy tàmbali yoon bi lu ne dégg na ko ni nga xamante ni sangam bu tedd la noonu la doon dégg lu ne ndax am na loolu kat ku ko yàlla def ci yow am na loolu booy boo nga séntu ko du jaar si mukk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu ne wax nañ ko day sos ci yàlla day wax lu dëgg am jabarkat loolu lépp bu ñuy jàng alxuraan dañ koy gis jeex na kuy xëy ngam sa biir alxuraan doo ko jeexal mukk ci lu dul ni da nga gis yonent bu ma sa wax ni nañ wéetal yàlla nañ jublu yàlla nañ woon gannaaw adduna sama nit lañuy njëkk a wax kii day dafa dof wala kii day fenkat la wala kii day njabarkat la wala kii day day wax ci yàlla lu dul noonu wala dafa dajale fen yu njëkk yi fii dina ko wax naka jëkk loolu mooy doxee waaye sëriñ bi day wakkiilu boo ngi mu wakkiilu woon ci yàlla jox yàlla boromam te muy dëgg ci moom ay noonu taxaw fi kanamam waaye mu xam ni yàlla moo téye nosu ñëpp mu jébbal yàlla moom ab nosu yàlla di ko jëmale fa fa mu gërëm te boolewut ak dara yàlla loolu nit ñi ñëpp kat war nañ fa dugg te bañ fa boole dara maa ngi ko dale ci Mbàkke Kajoor keroog ba mu wootee di yare ci wàllu roob ndax booba daara sëñ Mor Anta Sali moo fa nekk sëñ Mor Anta Sali doon jàngale mbooloo mu bari ne fa bi sëñ Mor Anta Sali làkkoo te ku baax bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñu ko def la mu def ci moom mu xam ni kat bis ni ki tey koo xamante ni jàng kese moo la fi indiwoon man ngaa yeewee waaye boo xamante ni nag li mu bëgg li mu bëgg nga bëgg muy egg ci yàlla fekk lu jiitu loolu kat daana bindal nit ci jamono sëñ war a andi sëñ di leen wax ni kat ah lii de baax na lool waaye fexe ba malayka yi bind ci aras nga dem ba di ko dégg moo gën di junj yooyu waaye tëbutoon nañu béréb ci ludul bi ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rabbi asxaabaka bil himma wala tarabihim darsa faqat mu taxawu ndax nitu yàlla yi li muy wax gëm gi ak wedd gi ñoo yem ci moom képp ndax yëg gim yëg yàlla mënul tuta yëg leneen lu dul yàlla ba mu leen waxee loola mbooloo mi la ñoo daal di séddalikoo ma nga tàmbalee ci rek bi ñu dencee sëñ Mor Anta Sali ca barab ya ca la ko nit waxee ne ko dañoo bëggoon kat ñu ànd dem jaare bi laaj doon su ko defee kat amaana fii mu tegoon sëñ Mor Anta Sali mu teg la fa booba la daal di joxe gàtt ñii naan dafa dof ñu ëpp ne kii day dafa dof kii day dafa dese ndax caraanga ju tol nii adduna ju tol nii buur ni mu kawee ñu di la ko gaaral nga di ko de nga di ko delloo kii day dafa dese waaye ay benn benn yoo xamante ne mos nañ dara ci yàlla wala yëg nañ dara ci toog yi ñu xam ne kii day borom mbir mu mag gi lay doon ndax lii mu deltu gannaaw lay ñu njëkk ndax am borom yi xam-xam lañ ca jàng nañ danañ xam ne ñu njëkk ne bu jàngee taarix yoon wii kii nga xamante ne ay atam bëriwul aw day ca yoon woowee la am waaye nag boobu ñu néew la woon ba dem dajale waa daara ñu wax leen loolu ñu bari di dem mbooleem ñoo ñooy doon dem nag kenn ku ci nekk ku ci am xarit bi toog yaa ngi ko fas yéene yóbbaale yow ci dem gi ngay dem ne kii kat léegi ci boppam la nekk mbooloo la bëgg nguur la bëgg ñu di ko warmaale ko màggal la bëgg comme exploité la ñooña dem ñii toogit benn benn yii toogit seen xarit yi ñu am ñu bëgg a def it ñoom itamit ñu ngi leen di téye ngir di leen wan ne ah kii kat lii mu wax fit bi mu am ba di ko wax war nañ ko jàpp te mosuñu koo xamit turul noonu kon nañu topp ci gannaaw ñii di dem di xëcc ñii di toog ba ba tey ba ñu néew des ci mu ànd ak ñoom ñëw fii ci Mbàkke Bawol tàmbali ak yaram foofu it mu gën a métti ndax ay bokkam la fi nekkal ñii ay baayam lañ ñii ay magam lañ te ñoo bokk benn deret tey bu dee xam-xamam sëriñ bi am nañ ko waaye li mu indi xamuñu ko seenu dégg alugu ca tax foofu bu nu xataal yi metti lool am na ci koo xamante ni àgg na ci bu sëriñ bi daan génn sax da koy wax naan da ko daan jéeméerlu ay jinne képp ko yore mënoo ñoo jaaxal lu ne ñu di ko ko wax taalibe yi mu ànd nit seeni xaal àgg na ci kawe koo xamante ni pour ñu jaxasoo ñeneen lu jafee jafe jafe jafe jafe la ba sëriñ bi jógee foofee dem sañ ci Daaru Salaam ba ni mu jógee Daaru Salaam ñëw Tuubaa gi def fi juróom-ñaari at door a dem Mbàkke Bari ci Jolof kon ku ne xam na ne kon am na lu mu daj lu métti am na fu mu jaar fu métti ngir tey bis bii mën a am loolee nag war nañ koy fàttalante fàttalante fu nu toll te bañ koy sàkkare ndax nitu yàlla yi seeni wax dafay diis ndax tawxiit Sëriñ Tuubaa dafa wax ne ñaari tawxiit la lam njëkk a wax ci beneen téere daf caa jàngale tawxiit takkallum boobu yi muy Mawaahibul Quddus foofu dafa wax ne jaam bi bu mu takkee ay tànkam takk ay loxom di ko yor ci bàmmeel bépp ku xam-xam bu mu fa yóbbaale te du tawxiit du ko dikk dara waaye xam-xam bu mànki te te te tawxiit mat du ko wàññi dara foofu la ndee tawxiit takkallum mooy bi nga xamante ni daf koy wax tawxiit boo xam dañ la koy jàngal nga di ko dégg mu nekk ci téere waaye nag dafa am beneen tawxiit boo xamante ni moo gën a kawe boobu ñu di ko wax taxarruf taxarruf boobu bii nag la bëgg nu bokk ko gëstuwaat bu baax ndax sëriñ bi boole mu jàngale kat dafa bëgg nu xam bind ko rek ci neen bind ko it bàyyi ma waaye dafa bëgg nu xam tawxiit boobu bii nag mooy di gën a wér te àggaguñ ci gëstu àggaguñ ci seet ko àggaguñ ci jéem koo xam ba xam tawxiit boobu mooy kan ba tax nañu yem ci tawxiit takkallum bii rek kii waxee ci tawxiit taxarruf te ñoom àggaguñ ci xam loola wala ñu seen loola dana diis ci ñoom ndax dañuy daal di bëgg a wedd li muy wax te fekk ñoom ñoo ëpp bu fekkee di wax loolu moo tax taxarruf boobu bii nag ñu war koo jéem a xam dëgg dëgg xam moo tax fa mu koy waxee ci masaalik ba mu demee ba ci biir dafa wax ne secret laa ilaha illallah géej la bu fóot néew mënees su tàgg soo ko de géej la bu xóot mënees koo bind ci tee ci këyit déedéet wax ni ñi ngi koy amee ci joxe sa bopp nangoo wommatu ngir yàlla ñi ngi koy amee ci wuuteeg sa bakkan ak sa bànneex seet ku ko mat nga jox ko sa bopp bàyyi kook sa bopp mel ni néew ci moom wakkul la daal cheikh kamay bi wadiha bayna yaday xaasilihi tantafaha noonu ngay mel mu ni dees na ko amee it di su ko amee mukk ci werante ak ko xam di su ko amee it ci ku la raw nga di ko diiñat ak a wedd dees koy xame di ko amee ci joxe sa bopp kala koy joxe day wax ngay dégg ci sama nopp waaye mu bind ci kii bi la jox kon loolu yi taxaram moom yi sëriñ bi wax kat war nañ koo gëstuwaat bu baax mooy tax bu mën a xam ndax sëriñ bi kat bu taxawee wax ne xale ma nii maa kaana xabalal xalqi man kaana ni bi karamin wa tëlqi suñ borom xamal na ma njëkk muy bind bi néef yi ku ëggut ci taxaram boobu mënoo xam ne sëriñ bi wax ko bu sëriñ bi taxawee wax ne kaafaani al baaqi mamaata sarmada wa bi baqaaya yasuru ahmada ku amul ci xam taxarruf boo bii mënoo xam ne sëriñ bi wax lu mu doon damma xayaati li xayaati laahi suñ borom tàppale sama dund ak dundam ku amul ci taxarruf boo bii mënoo xam ne sëriñ bi wax lu mu doon taxarruf boo bii kon gaañi nañ ko gëstu ji jéem koo xam ba xam xam loola mooy lan daa nga dégg nit yàlla ne àndal xaq ñu ne fase boppam ña koy def kat mooy ñi nga xamante ni taxal rek lañ xam waaye ëllëg ci xam ndax taxarul bii may wax nii subhanaka anna anta bila shakkin subhanaka subhani tawxiiduka tawxiidi wa xisiyaanuka xisiyaani ña ab di ci foofa di ko wax ñooñee xam nañ lan mooy taxaruf te ku ku ku xam la ñuy wax it doo ko weddi mukk ki xamut moo koy weddi loolee bu baax ko sëñ Sàmbay daan wax naan sa mbuutum xalimaaraw da boo su Muusa te way dee ya nga dekkal tëwul na Isa bi ko Seex Muusa ka di wax mag ñaa ngi fi waaye dañoo xam lan mooy taxaruf moo tax kenn weddi kon nag lii fóotu xol di fóotu xel di fóotu yuqu diine mooy taxaruf loolu yi nañ ko gëstu bu baax fas ko yéene xam ndax gis nga bi ñuy werante ci gànnaar ay fóore yu mag kii ne Seexina Ahmada Tijaan nee na kii ne Seex Abdul Xaadir Jilaani nee na kii ne Imaam Sarnusi nee na ci firi baatu Mahya inna Allaha mahanaa biñ koy werante ba agsi ci sëriñ bi bindum loxoom sëriñ bi maa ngi ak moom daf leen a wax ni ñoom ñett ñëpp ku ci ne wax na dëgg yéen ñii bëgg a firi seeni wax yéen a xamul képp ku xamul nag yàlla ni mu àndeeg képp ku xamul jëmm yàlla ja na ma demee mënoo xam yàlla ni mu àndeeg nit taxaruf ci la nit ki mose dara ci jëmm yàlla joojee suñu borom subhanahu wa taala kon loolu lu ñu war a gëstuwaat la te loolu tarbiyatu ruuxiya mooy li koy maye te loolu nag lu tumuraanke la te sëriñ bi loolu mooy li mu doon dundal la taxoon mu waxoon waa daara bi ne leen que bis ni tey koo xamante ni jàng kese xam-xam rek bu ñu aju ci téere yi rek moo la fi indi booy boo dem ñeneen ñu mën a jàngale bare na waaye nag yorante bi sol na ko ba mu fees dell ak xelmul la du nuyu boo xam ne nekkul ci biir téere yi te loola dana aajowoo jaamuñu ko def ndax du ko yóbbaale mukk par sax ndax fii lañ ko aajo looloo tax mu waxoon loolu ñu ne kon sëñ bi noonee mu doon yara nag moom ko baax bi loolee nag dugg fii ndax gaa yu baax yi kat damay wax ni lañ yore woon fii lañ koy jëfandikoo ci àdduna ñoom ña nga ca xin damalikel mukk tëgg ña nga fa suñ borom mu di leen dara neen la yoon wañ awoon na ngir egg ci yàlla loolee fii lañ ko bàyyi mbub mu ci nit sol nag bu ko summee am na bu ko koy sol ci kaw suuf du mën a ñàkk mukk tey président bu fi jógee beneen président bu ministre bu wàcc beneen ministre doom directeur bu wàcc beneen directeur doom loolu mooy adduna daraja du man di doon mu ko doon dégg daraja doonee ñu mukk am na gaa yu ko yàlla def nga xam ko am na gaa yu ko yàlla def nga ñàkk koo xam am na gaa yu ko yàlla def lanuy dimbali nag ñun ñëpp mooy xamaat njàngaleem Serigne Touba moom taxoon mu doon wax te bañu sukkandiku rek ci sama maam Serigne Touba wax na ko nangam sama maam Serigne Touba defal na ko nangam yow day mel ni kat reggug sa maam wala màndug sa maam doyul ak rekk doyul ak naan noo ngi lekk noo ngi naan dañoo war a xam sunu maam yooyee nan ànde woon ak Serigne bu jox ko seen lépp ba Serigne bi def ca ñoom lam def ca ñoom ñuy wër loolee di ko xeñ fu ñu ko gis teg ca sunu bakkan ngir mën a àgg fan yee yoon màggal kat du ñëw rek ñu daje. ngeen sukuraam joxe li ngeen am ngir yàlla ngeen tamit jëmmi seen tubaab ñu ne leen taf ngeen dem déedéet ruu yi dañoo war a dundaat ruu yi dañoo war a yeesaat pet ci yàlla ndax yàlla dafa neex lool te ku ko mos a xam yàlla moo dàq lépp boo ko amee fàtte lépp fàtte ñépp fàtte fépp fàtte lépp yàlla rek moo mën ku ko mos nag xam ku ko mosul nag bu ñu la ko doon liyaar ba kër adduna di tukki it doo ko mën a xam mukk day mel ni wax ak yow mooy wax ak miir bii waaye nañu jéem a gëstuwaat bu baax fexe xam dara ci suñu borom bi ñu bind ndax suñu borom kat moo wax ni xam leen ma jëkk ngeen may jaam naka ngeen may jaamoo te xamu leen ma kon nañ jéem a am ak gëstu ak xam ci suñu borom dox jëm ci yàlla nag du ma sa neex képp kuy dox jëm ci yàlla na bàyyi xel loolu faw dafa am ay noonu yu taxaw ci sa kanam bakkan a nga fi fexe ba tëkku doy la soxla bànneex a nga fi fexe ba tëkku doy la soxla addunaa nga fi fexe ba tëkku doy la soxla seytaane mi ma wax léegi mu ngi fi fexe ba tëkku doy la soxla waaye bindeef yi nga xamante ni dañoo mel ni man topp seen bakkan yi te bëgguñu kenn dem ku bëgg a dem ñu di la gàllankoor rek ndax seenu ñàkk dem bañ a feeñ ñooñu ñu ngi taxaw mooy tax yitt dëkk mooy tax nit mën a kawe yitt dëkk seelal sa pas bu dëkk yemale li nga nekk yow nga nekk ci yow dong ak ñëpp fekk la ci ñoo yem ci yow képp yéen saa bokki teel yii nag maa ngi leen di doon lay dégg képp koo xamante ni sama ànd ak yow yaa ngi koy aj ci kenn ku nekk ci biir mbooloo mii di xool aw doxinam bu taxawee nga taxaw bu yokk bu yokkatee nga yokkat bis ni ngi tey yeewi naa képp koo xamante ni am nga lenn luy sikki sax wala nga ni ko xalam wala nga ni ko xalaat yeewi naa la ba man li ma nekk xooluma ci kenn ku yàlla bind ci poos wutuma ci wéttal ci kenn li may wax man la engagé engagé wu ma dugg kenn la engagé wu ci dëgg bu weex tàll la ci laa taxaw googu yàlla ak yonent bi ak ngir ma sëñ Tuubaa jaaroo te ko ànd ak ma ne danga jooxe te ñooñu wutuma ci nag wéttal wutuma ci xarit wutuma ci àndandoo xooluma ci mbokk mu ma ci gëm xooluma mbokk mu ma ci wet xooluma ci xarit xooluma ci àndandoo xooluma ci kenn la ma daan wax démb ak bërki démb moom laay wax ba tey ku mu soob ma doy la diggal nu ànd dox dem ci yàlla ku am lenn looy dégg dégg wala looy xalaat demal toog te nga jàpp sa jàpp loolu defe naa ne lu leer nan ñi la ci ñëpp dama bëgg ñëpp maa si ko dégg te jàpp kay nit du nax boppam jataay bii tey képp ku fi tudd yàlla ak koo mën a doon xol yëpp yëngu na loolu yàllaa ko mën man mii mënu ma ko du ma nett natt bi ma ko yëg nag xam naa ne man du ma kenn du ma lenn waaye nag yàlla moo wax ne inna al fadla bi yadillah yutihi ma yasha yàlla moo yore ngëneelam ku ko soob la wax ku ko soob la wax de néewut tant néewut giir néewut diw néewut lekk ku ko soob rek fu tooba rek daal rek ko la ngëneel lay tàqale inna al fadla bi yadillah yutihi ma yasha wallahu yaxtasu bi rahmatihi ma yasha yërmande bi ku ko soob rek ci la koy def man nag samay wax yëgatuma ci benn yeeg gëm xoolatuma ci ŋañ ak lu tag yooyu yëgatuma ko mënatuma koo yëg nag ba ma ko yëgee moom rek laa noppee yëg leneen lu dul moom ba ma ko dundee laa noppee dund leneen lu dul moom yàlla rek ka fi nekk yàlla moo nu mën a jariñ yàlla moo nu mën a lor yàlla ñuy jox yàlla ñuy xañ loolu na wér ci noonu may wax nag nun taalibe yi nun bu fekkente ni wax gi ñu wax ni sëñ Touba gëm nañ ko dëgg la ci noonu waaw ndax mënuñoo jàpp ci jaalibatul maraaxib te bañ a takk benn téere bañ a takk benn galet bañ a takk benn gàllaaj nun war nañoo seetaat suñu bopp kat foo waxee ñu ne sëñ bi sëñ bi sëñ bi sëñ bi sëñ bi sëñ bi sëñ bi boo noppee gaw bañ a geeg moo ne ma sarik sëñ bi li mu wax ñaan ci jaalibatul maraaxib ñaanuk sëñ bi ndax dañoo doyul wal teg fi naa bi alifi taxawuse maa yustaxaasu minu yaa mahawis loolu kum doy lan moo lay doy wa wajjihi shaytaana wal makaida li xayri nahwi laa tasuli kaida wal teg fi nii mafsadatan wa xasada wala tasuli faasidan aw mufsida wal yakun fi lxarakaati sarmada wa sakkanaati wa xayaati ahmada wa isa laxiina min janabi yaa man doo shukre saat naa wal taqini maa saani bilxasbala wal yakun mufassiran bilbasmala wala yéex bi bàyyi ak seen baqaar pour géométrie bi ba li nar leen sa baqaar bu ñu sëñ Tuubaa doyee kat jàpp ci loolu yi moo gën a wér ci ñun nag loolu la ñu di ci dugg di seetloo ka takkoo ka galaloo ka loolu la ñu di ko def ñun gëm gi ñu wax ni gëm nañ ko sëñ Tuubaa dugg ci ñun ndax lii mu wax nii ñaan ci boromam bu dee doyloo nañ ko te muy dëgg ci ñun ñun ñëpp war nañoo doyloo loolu war a si def ndax li ñu sonal ñun ñëpp kat añaan képp la. añaan képp fekk lu yàlla def mu mel ni cant nga ñàkk ko nag añaan nag képp ku ko def tax bi nga sa war a faatu ko ngëm yàlla gi gën a kawe mooy nangu dogalu suñu borom yaa ngi tax bi aljana te faatu ko ndax añaan moom mooy yow yàlla li nga def ci diw kër néeguma ànduma ci su boobaa jëflante wu diw di yàlla ngay jëflanteel yàlla ku mu defal daraja bu mbindeef yépp dajewoon ngir bëgg daraja joojee suufee keroog leen koy gën a yëkkati yàlla ku mu joxut taar bu mbindeef yépp dajale woon ngir bëgg taar boobee far keroog leen gën a rafet yàlla ku mu jox xam-xama ko leer nit ñëpp buñu maasoon bëgg a xajamal loolee keroog la ko suñ borom di gën di leeral ngir gën a jëm kanam kon nañu bëggante ngir yàlla nañu soppante ngir yàlla nañuy nangu dogalub suñ borom it ngir yàlla ci bindeef bu mën di doon ndax yàlla mooy joxe kenn joxut boppam ku doon jox sa bopp yaa fi ëppale bu dee taar la yaa koy ëppale bu dee am am la yaa koy ëppale bu dee daraja yaa koy gën a kawe bu dee xam-xam la yaa koy ëppale waaye lépp ci coobare suñu borom ci la ko suñu borom di defee kon nañ ko nangu ci kum mën di doon nañ bokk gën a góorgóorlu bu baax te gën a farlu bu baax te gën a takk bu baax te yàlla rek tax xam ni adduna yi nag amul solo képp ku fi nekk deel muñ ndax kër gi moo bindoo noonu ku fi nekk di jànkonteeg li nekk ci kër gi da nga gis ko la xeeb da nga gis ko la ŋàññ da nga gis ko la xas da nga ñàkk da nga wéradi da nga tawat da nga bëgg loo amut lu ne mën na la fay gaal loolu kër gi bindoo noonu waaye képp ku fi nekk day te jógu koo fi foo toll war ngay torox ci kanamu sa borom ndax dafa bari muy xew loo xamante ni xamoo lu cay sëb ci ndax nit a ngeeg ñaari loxo wax naa ko ba tàyyi di dox moo day xamoo ndax sa ñaari loxo yi mu jëm déet yaa ngeeg sa ñaari gën xamoo sa ñaari gën yi ngay mu jëm déet yaa ngeeg sa ñaari tànk xamoo ndax sa ñaari tànk yi ngay mu jëm déet diw nangam dal na ko nga bëgg koo ndokk xamoo luy sëb cër ca la ko dal de xamoo ndax xam nga ca wàll wala déet de bul yéene kenn lu ñaaw bu dara lu dal nit ba nga ndokk ko ndax xamoo lu cay sëb cër ak lu cay sa cëru njaboot gi nga jur wala njaboot sa sa njabootu jege ñaar nit nay rafetal jëmale ci ñëpp bariwaa na nit day di jóg ngay am yéene mu bañ a jóg te fekk jógum googee ca la sa jóg nekk ca la sa jógum njaboot nekk barabaa na koy kasu teen nga nga naan yàlla bu teen bu gën te boo liggéey soo mënee yàq sa njëriñ yëpp ci teen boobu ngeen di naan kon jullit ñi nañu gën a boole suñu bopp nekk benn te yàlla tax loolu kat mooy li Sëriñ Tuubaa doon jàngale di wattandiku tooñ waaye di jéggale ak tooñ te yàlla tax kenn ku ne yaa gën a xam sa bopp kenn mënut a nax boppam moom nit mënut a nax boppam mukk ndax kenn ku ci nekk xam nga sa bopp nañuy suturaalante te yàlla tax ndax kenn ku nekk wax nga wala nga jëf loo xamante ni ku dul yàlla du ko mu xam te yaa ngi ne mu gën moom toog sa ay bopp ñoo ji na gën a lijjanti ko te bàyyi ay jàmbur yi ndax kenn ku ci nekk ayib yi jàmbur bu la lor kat sa ayib bi bopp moo lay lor te nit loo mën a mën a mën a mën a mën a jaamu yàlla bul xeeb mu ka nga defe ni ak jaamu yàlla am dafa néew wala mu sàkkan ba mel ni man nii ndax barawaana waa joo gis mu mel ni ku sàkkankat ba mel ni man te boo yore ak xolam yàlla rekk ca ne borom xol bu nangu dogal su borom la borom xol bu tabe la du wax nit dara ci fu nekkul du yéene lu ñaaw doonte gis nga ko ci cëri sa yërëm muy mel luy jëf noona yi xol bi mooy li am solo nit xol moo ci am solo bu yéwénee lépp yéwén yéwén dara du yéwén man ngaa gis ku dëkke koor di fanaane nawet bi dëkke njàng alxuraan fu mu toll ma nga kurus ak jukkee ma dollam te xolam ma nga ca fees dell ak añaani nit ñi lañ am fu mu toll ma ngay tudd nit fu néew fu mu toll ma ngay wax lu dëkk kon nit ki waroo gis sa bopp waroo gis seen jëf waaye yittewul si ayib te génn ci ayib jàmbur yi ayib jàmbur yi du la lor man sama ayib man lay lor waaye du lor kenn ndax man nii maay laytaa yoon sama lay doon bii ci sama biir bàmmeel man rek li mbooloo mii di bari bari bari kenn képp lañu kenn par kenn lañ fi dikki kenn par kenn lañ fi dem kenn ku ci nekk si biir bu baax nga laytaa yoon sama lay doon ne fa yow doon te foofee kat ayib jàmbur du la fa fekk jëfi jàmm du la fa fekk sëñ ayib dong moo la fay fekk say jëfit ngay métti ko kon kenn ku ci nekk na xool la ko naqari ci boppam mu fexe jihaat ak bakkanam ba loolee dañ te war te bañ a dugg ci mbirum jàmm loolu mooy war a gën a ab jullit mag ñi nañ yërëm ndaw ñi ndaw ñi nañ wet mag ñi yar nañ ko delloo si waajur nañuy yar seen njaboot yi léegi bariwaane na ñuy tawat lool koo gis ma ngay tawat ci njabootam dara ndax sama njaboot gii lii naqari na ma te dara warul loola kat la la naqari sa njaboot ba nga dem amin yaa rabbal alamin amin yaa rabbal alamin amin yaa rabbal alamin ngëneelam nag li ma ko waxee léegi da ko ajut ci lenn lu may coobareem ndax nun ñi li nu dajale fii kenn ku ci nekk xam na ne day bi mu fi toogee tey fàtte na lépp lu dul yàlla loolu yàlla rek ko man waaye ndongo lu doy di nit a xeebu xam ngeen mënul loolu man nag li ma bëgg ci yéen day lenn la moo di Mawlaana Cheikh Abdul Ahad Mbakke dafa am lu ma xool moo di bu ëllëgee yowmal xiyaam bu ñëpp teewee gaa gaa yu baax yi ñu jóg di ramu bañ bañ agsi ci turu ku baax bi ñi àndoon ak ku baax bi di jóg di def la ñoo la ñooña doon def di def la ñooña doon def di def la ñooña la ñooña doon def bañ ni ana ki nga xamante ni buñ tuddee aw turam ba léegi jóogut ñim ànd rek ay def lii yéen ñii laa bëgg ngeen bokk tey tey ma ni mani mani déglu leen ma bu baax man tooguma fii di beppanke tooguma fii di wax lu ma xamut tooguma fii ngeen wër ma tax may wax lu ma neex weesu naa foofu de waaye képp ku dégg-dégg wut yore sa pas-pas bu wér bu sell giñ naa ci màggu yàlla ak yonent bi jëmm Sëriñ Tuubaa da nga yëg ca kaa yooyee ci lu ma natt li wut man xàmmeetuma nag man kuy gëm ku mu naqari weddil ku mu soob gëmal xooluma ku ma ci topp xooluma ku ma ci wan gannaaw ñoo yem ci man képp ku topp nag gëm ba fa ngëm di mujjeeg aji gëm da nga xam ni gëmu gëm gëma gën ku topp weddi it ba fa weddi di mujjeeg ka weddi it da nga xam ni weddi amul solo weddi nag mooy li yàlla def lépp xam naa ko te yow mii lii nga wax gisuma ko ci kon nanu gën a bokk sant yàlla bu baax te gën a fedd liwaat sunu laxasaay bu baax sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp yàlla nañ ko fekke at yu bari te fekke gi ànd ak wér ànd ak mucc ànd ak mucc la ànd ak mucc gu rafet yàlla na suñu borom lafal cat yàlla na suñu borom lafal cat yàlla na suñu borom lafal cat yàlla na seytaane seexlu yàlla na seytaane seexlu yàlla na seytaane seexlu yàlla nu yàlla saxal ba faw wu saxinu rafet def na nuy genn gu wóof bu seey ci Sëriñ Tuubaa ak yonent bi ak suñu borom yàlla na nu ko suñu borom bokk defal kenn ku ci nekk lay ak bëggam yàlla na ko ci yàlla fekk ak lu kawe njortam kenn ku ci nekk la muy ragal adduna ak alaxira yàlla na suñu borom dox diggam ak loolee ba faww saaxiram wa baatinam noo ngi sant bokk yi fi teew yépp Sëriñ Seexu Sekk noo ngi lay sant bu baax ndax nii nga waxee kat ku ko dégg day defe ne dañoo xamante bu yàgg te bañ xamante léegi mëtagul weer waaye li mu wax ci moom la nekk ndax yëg-yëgu yàlla bépp benn yëg-yëg rek la du yaayam yëg-yëg du yetti yëg-yëg courant bii di doxal làmp bii mooy doxal ventilateur bii mooy doxal këf yi ñu yore donte këf yi wuute nañ waaye li leen doxal lenn rek la yàlla ku ko yëg yëg nga ko ku ko yëgati yëgoo ko ndax kat lu ngeen seen mi ngi sàbbal yàlla micro bii mi ngi sàbbal yàlla ca kaw kurus gii mi ngi sàbbal yàlla ca kaw maxtu mii mi ngi sàbbal yàlla ca kaw waaye mbooleem li li fi nekk mi ngi sàbbal yàlla ca kaw te kenn ku ci nekk it xeetu sàbbal da ngay sàbbal yàlla loolu nag ku àggu ci taxaru mënoo xam loolu mooy lan ku ca àgg nag day leer ci yow nag ñi nga di ko dégg jëf ren te doo ko sikki sax ndax am na ci xam-xam bopp nanguwut sikk xam nga li nga jëlee ci téere moom mën nga naan ku ko bind ko moom lu ko tax a bind rek mën na caa dugal ay xalaatam mën na caa yokk mën na caa wàññi waaye xam yàlla nanguwut loolu yàq yi moom lay doon bu kenn defee ne kat lii ñuy wax gis suñu bopp ñi mu xalaatuñ ko ndax amuñu noonu yëg na ni ñun nekkunu yëg na ni ñun amuñu li mu yëg mooy yàlla mooy ki am yàlla mooy ki nekk foofu la ñu nekk kon noo ngi sant ñëpp tey gërëm ñëpp noo ngi sant boobu ñu fi teew di suñuy wëllëre Pape Niang mii ak ñi mu àndal jóge Dakar di suba ba léegi ñu ngi fi ku ne xam ne sama diggante moom Nour Ibrahima El Hadj Ibrahima Nour mii dëkk Mbarasaan di meeru gox ba ñoom ñëpp ak suñu mbokk yi nga xamante ni ay Marocains lañ te def jitte bu kawe ndax moom mii tey man xawma fu ma xam wax dëgg yàlla kenn la xam ci bokki taalibe yi ne ko sëriñ bi laay màggale te li ma koy jox nag mais amee laa ko koy joxe ñëw man ci màggal gi laa commencé gis mu ngi nii kee moom fekkoon na ma xel kon kon sëriñ Canaba noo ngi lay nuyu bu baax di la wàcce sa waxtukaay bokki taalibe yi nag yéen dama leen di ñaanal ndax seenub dogu ak seenub gore ak seen yitte ak seen pëstéef kenn mënu koo natt man day mënuma koo natt sama xol sedd na guyu ci liggéey yi weesu yëpp rawatina liggéey bu Xelcom bi weesu taxawaay yi ngeen ci taxaw rafet na rafet bopp dem na dayoo te li muy jege jege jege màggal bi lépp rafet na ba lenn lu ci nekk mel noo xamante ni kawe na suñu ndox day kawe loolu Sëriñ Tuubaa di wax ne wax di xawaay jële si na daamoo fii xidmati waxam doom maadaamoo yéen a ngi ci biir te naa tëdd ko inna la si na saaroo fii xidmati yi fa la xamul yaa wastal jannati yéen ñii la de assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh